أتوا يلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عجوز فروق في ثياب عروبة وأصل بتو النكف أنا أفضل آية عجوز فروق في ثياب عروبة gururu duna almadina qablu ajibu yangi ajuzun farukun fi siyabi arubatin gururu duna almadina qablu nena ajibu nena ajuzun adduna nena dafa mel ni màgget moy mooy màgget ñu ko tuddee góor nag góor cheikhu lañ koy tuddee jigéen la ñuy tuddee ajus boo déggee ajus rek xamal ne jigéen parce que muy jóg ci ajus mooy ku mënatul a jur mooy ajus mooy ku ku télé ko xam ne maa gën a ba mënatul a jur tuddee ajus siixatu nag teeral faolun góor ak jigéen ñoo ca yem da nga wax ne imraatun saburun rajulun saburun rajulun saburun imraatun saburun ñoo ca yem comme noonu la demee nag moo tax nag ngay dégg ne ajusun parce que ala wazni faolun la doo wax ne ajuzatu kenn du ajuzatu ajuzun rek ngay wax buñ la ko waxee rek mooy gis nga ko mooy ku tële ko xam mënatu la jur farukun ba léegi moom la yonent bi ne laa yafruku muminun muminatan farku mooy bañ farukun mooy jigéen bu bañ jëkkëram jigéen moom dañ ko may jëkkër ju mu bugul tuddee faruk comme siixatu ba léegi faol la uh-huh. moo tax doo wax farukatu dama ne farukun nga yem jaru nga indi taa parce que li ko waral mooy ne gis nga ko moom jarul jigéenal góor ak jigéen ñoo ca yem farukun kon ajuzun meer la bu ñaaw teg ci farukun bañ jëkkëram moom moom àdduna noonu la mel fii siyaa bi waaye sol yére nag arubatin arukaan ne oruban atraban orub mooy ku bugg jëkkëram mu ne àdduna def lay woon ne def la bëgg arubatin dafay sol yére ne dama la bëgg te fekki la min haytu lam yadri na summa fittatami nee na xururu dunaa ni adduna naxee woon almadina ñi jiitu xablu jiitu ñun ñuy ñëw alaji malik ne ajibu njaal la ma de ñu jiitu ñi mu nax leen ñun ñu ñëw mu naxaat nax sa maam nax sa baay nax la yow nax sa doom nax sa set kenn du sa yéew waaye ñaaw xel te la xam ne yi ay affaire naxaate la moo tax mu ne xururu duna adduna ni muy naxee almadina ñi jiitu kablu man de ajibun yéem na ma te jaaxal na in adhakat in adhakat yawman sa tubki bi suratin wala xayra fi llazati baadu lahibu mu ne wa in fekkee ne adhakat reetaan loo na la mm-hmm. maanaam jox na la loo reetaan tey jii mm-hmm. yow man ci bés mm-hmm. sa tuub ki dina la jooyloo bi suraatin ci lu gaaw ci lu gaaw bu la jooyloo tey mu ne gis nga bu la bégalee tey reetaan loola tey jooyloo la ëllëg sa tuub ki dina la jooyloo bi suraatin ci lu gaaw adduna du la jox tey jii nii nga continuer rek mu di la koy jox neex na dina am bés mu nangu ko bu dee gune mu nangu bu dee alal mu nangu bu dee wér mu nangu bu dee lu mu manti doon lu la jox nguur mu nangu masu ko jox ab Ablaye Wade mu ne nii soppi waaw wala déet ana mu tey xakat bu la reetaan loo tey yow man ca bés ya sa tub ki dana la jooyloo bisu rajo ji lu gaaw mm. Alaaji Malik nag ne wala xayra man gisuma benn teraanga fi lazzaati lazzaati lazzaati am naa lif lazzaati hmm? fi lazzaati ci banneex boo xamante ne baadu lu mu yàgg yàgg yàgg lahi bu njahanam moo cay tegu man de duma ko jël <laughs> loo xamante ne neex na waaye bu pare ñu dugal la jahanam man duma ca dugg wala xayra gisuma jàmm wala xeera gisuma teranga uh-huh. fi lazati ci banne boo xamante ne baadu boo cay paxe pare rek ñu laxiibul ne jahannam uh-huh. yo da uh-huh. jaru ko ala mislu ala ne ahakañ mislu dafa mel ni duudil xazzi sax boobu nga xamante ne moom la ñuy tuddee gis nga ko xaz moom mooy defar wuluur dinay am ci garab yi nii waaw dafay defar benn néeg néeg bi ci lay nëbbatu nag heure yi nii ci lay nekk ne ba ci biir nawet ba nag moo am ay kii laaf pare dal di naaw nekk lu fàllu néeg boobu noonu muy defar nag moom la ñuy dajal defaree ko néeg ñu tuddee setin yére bu ñu tuddee setin te ñu ne daganul góor sol ko te président yi di koy ci lañ koy jële mu ne ala aha kañ mhm. mislu dafa mel ni duudi sax al xaz sax boobu ñu tuddee xaz man yajma udduna kii boole àdduna hmm. kii boole àdduna dafa mel ni saxu boobu ñuy tuddee xas hmm. parce que dafay defar defar defar néegam ba pare ngay ñëw nangu ko parce que noonu la ko sinuwaay di def xam nga bii dafay dem néeg ci biir néeg bi da nga koy gis ci kii nekk ci kii nii dafay nekk ci biiram dafay dox ak néeg bi nii ci biir bànqaas hmm. boo ko foog gisee da ngay ne bànqaas la bi dafay dëgër waaw dafay dëgër léegi nag bu eh, bu la nee nga ne xas bu la nee nga ne xas bi ñaari ñoo ci léegi bu ñu demee sin nag ñi nga xam ñoo koy defar dañ lay sànnil xob yi après ñuy defar parce que néeg bi dañ koy def pour rek ba ba ñuy kii rek mën a naaw rek dem ci la ñuy nañ tam def seen kii léegi nag bu ñun kii guddi bi ba xëy suba teel dañuy jël yëpp dajale mu mel ni comme lënd noonu ñu dajale yóbbu sax yi defaraat ñu demee ba suba ñu ñëwaat dajalewaat sax yi defaraat sa xëy na fi nekk fa continuer di defar rek duñ mos a xam ne dañ koy yóbbu bugg a wan ne seetal adduna mooy ne sax boobu noonu nga xam dafa sàggan xamul fan la ñuy yóbbu lëndam bi parce que dana defar defar defar defar defar buy xëy gaa yi ñëw buub ko yóbbu mënul xalaat ne waaw li may defar fu muy dugg wala waru ko xalaat mu ne waaye picc sax bi du ko xalaat ba noonu lay dee nag defar rek mu ne ñun nag kii boole àdduna dina boole boole téeméer dina boole lii dina boole di boole rek te lan nañ wax li muy boole daf koy lekk li muy boole daf koy lekk ko lekk koy naan du na ko ne fii la koy bàyyi waaye muy dajale rek muy dajale rek comme sax bi oto mu ne ala wér na man yejimaaw képp kuy boole mooy wax bi adduna adduna mislu dafa mel ni duudil xas bi sax boobu nga xam moo la ñu tuddee saxu xas wali duudil kabzi fii mansuujihi gis nga ko hmm? Hmm? la tabuubu la tabuubu la tabuubu gis nga ko la tabu tabuubu du la tab la tabuubu la wali duudi ñeel na sax fii mansuujihi loolu muy rabbu noonu la tabuubu pertement rek ma cay jël tab tabaab tabba mooy la mooy perte tabaab ay perte ma kon la tabu mun mu ne def say perte lam bi laamu tawkid lam bi wa nekkal na li duudi ñeel sax boobu fii man suñu loolu muy rabb la tabu perte ma rek perte ma rek la cay jële parce que dana defar ba pare waa ji jël ko yóbbu mooy ñun tamit noonu la ñu da ngay defar a defar ba pare say doom ñëw jël da defar a defar tabax defar léeg defar lépp defar ilaaxi bi dee bàyyi ko fi say doom jël ko di noosa rek waaw wala de hmm. te du lii foofu wala lii nekku fi hmm. keese nee na wala taku bul doon hmm. mimman xurra ca ña nga xamante ne nax nañ leen mbin ba di raflatin gannaaw càggante te wa yow ma bés boobu nga xamante ne isdihaami ci lay daje ala alamina mbinda fon yi naa fii buntu bu yomb de arkoana ko waxte du wala waxul la yawmun asiirun ko noonu yaa ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fa kabbir wa siyaabaka fa tahhir wa rijza fa dhaalika yawma'idhin yawmun asiirun mooy bés bu lan bés bu jafe jafe mbokk yal nañu yàlla musal keroog moo tax alaaji malik ne wala taku bul doon mm. mm. min man xurra caña naxu min baade xaflati nga naaw caggante si njop te wa yow mu boobu nga xamante ni iddihaami ci lay buuxante mm. alaalamina mbindaafoon amul bàyyi xejalal doom amul doom xejalal yaay <laughs> xam nga da ngeen daje si buntu pale nga ne ko papa rombal amul yomal geer papa jàllal xejaleen papa xejaleen président xejaleen sëriñ bi am na fii ci àdduna wala amu fi yowmal qiyaama tag amu fa isdihaamil alamina a fay buxante kenn amu fa garaat yal nañu yàlla yërëmaat affaire bi du caaxaan de mm-hmm. wala dégg mm-hmm. asibun bu jafe kaba ihuha mm-hmm. gis nga li jagadi ci la ca ñaaw kaba ihaha kaba ihaha gis nga ko tuux fii wa mahafina tux fii moo nekk feelu tux fii mooy feelu bi feelu mu daari ayna al fail mustatirun taqdiruhu hiya tuxwadi <laughs> taqdiruhu hiya parce que tux fii tux fii hiya ay addunia xaba iha mooy mafolum bi muqaddam dañ koy jiital dafa jiital naka mafolum bi iha mooy mafolum bi muqaddam tuxfi mooy feelul mudaare alfaayilu mustatirun taqdiruhu hiya kon tuxfi adduna dafay nëbbu kaba iha la ñaaw ca moom wa tubdi di feeñal mahasinan la rafet ca moom lii la adduna di def wala de dafay jël lu ñaawam yi nëbbu ko ci biir lu rafetam yi mu taaral ko ci biti nazoon dafay nanguwaat li ma tooti la muy jox alxabiba ko ko sopp salubun te daf koy nangu itam daf koy dëgëral nazoon mooy nangu salubun dafay dafay dafay dafay daf koy siif hmm, daf koy siif li ma tooti la nga xamante mooy salbu li ma tooti la muy jox alxabiba ka ko buggu ka ko buggu habib ka ko buggu ka buggu àdduna lu mu la jox dana ko dana ko nanguwaat du la jox mukk ba bàyyi ko ci sa loxo wala déet joxul Ablaye Wade nguur nangu na ko joxuloon Abdou Diouf nguur na amul ni moo tax mu ne naso nangukat la salu bul gis nga ko chiif mm-hmm. li ma tootil habiba la jox ki ko bëgg moom moom bëggul kenn de mm-hmm. mm-hmm. bul masa fàtte nag tuula dahri fekk yaa ngi dund gis nga ko laa tansa bul masa fàtte laylatan guddi ba nga xamante sabihatuha bés bu ñu xëyee fii hay yu addu keroog lañ lay compté loo oh, yóbbu lépp lépp loo masoon a def bul mas a fàtte guddi boobu mooy guddi ba ngay dugg ci bàmmeel bot sa ci àllaaxira guddi boobu ko mas a fàtte waaye yàlla yàlla yàlla wala tansa bul mas a fàtte tuula daari fekk yaa ngi dund la tansa bul mas a fàtte ansu léegi la tan guddi boobu nga xamante ne sabihatuha buñ ne bot set na fii haa keroog yu addu dinañ la compter uyubu loo masoon a def ci ayib yal ne aha kañ axira la mujj al anfaasi ci say noy yi daawim fekk sax yaa ngi noyu sa mujjantelu noyu daawim na nga saxoo bi fikra bi fikra daawim bi fikra daawim del saxoo bi fikri yi di koy xalaat zakiyu nee na xelu alhija xel ku xelu ci xel yahibu dana ragal yow ma keroog ba nga xamante ne la war a takkale ko ak waa adduna mhm. comme ci xadis ni yonent bi ku def lii dina la jéggal sa mhm. bàkkaar comme ni nit ki juddee woon te andaalewul bàkkaar yooyu boo ko defee waaw mu jéggal yooyu duñ ko konte dañ koy gome dañ koy gome man dafa leen tuddee zikrul xaas urida bil aam loolu yente moo am boo jéggal waaye bés boo jéggale wala yooyu mu la wax boo ko defee yàlla jéggal la yomul kiamati do duñ ko fa gis xam nga dafa wax ne gis nga ko waaw mali hada kitab la tughadiru saghirata wala kab illa ahsaha te ñu jéggaluwul ñu yàlla yërëmul waaw nga bu dee julli ñi moo ko wax yu kafiru anum sayaat yi yàlla dinaa muur seen lu jaaw ku yàlla muur lu ñaawam nag mooy yomal kiamati kenn du ko gis te moo wax ci alquran yawma tubla sarair keroog lépp loo doon nëbbu na génn si hmm. mu waxaat ne téere bi la yugaadiru saxiratan wala kabiratan nëbbul dara bàyyul dara ndikite hmm. waaye ñu baax ñu bokk ñu ci parce que kafar xaanum daf leen ko muural hmm. ñoon duñ ciy bokk wala déet akala waxi dafa am ñu moom waaye ku yàlla jégal na foofu nga jëm waaw wala déet kon alaane wer na de axiral anfas ba ci sa mujjun noy daawim del xalaat bi fikri hii di xalaat loolu mm-hmm. sa guddi boobu ci biir bàmmeel war a xëy àllaaxira mm-hmm. zakiyul hija ku am xel mu yeewu laa wax nag zakiyu ku yeewu alhija xel mm-hmm. yowmal firaaki kero ba mu war a daje te ko ak ay bokkam ragal bés kon fa yaa ayuha fa yaa ayuha yow nga xamante ne albaani di tabax fan ngay tabaxee mahalla diyaafati fañ la ganale eh yaa soof gan bu soof ñu ne gan du tekki lan <laughs> mu ngi noonu de <laughs> de bu yeboo yéen waa kër gi <laughs> baal xam nga taalibe di jóge fii rek di dem teeru bi léegi nag xam naa wàcc ci benn juma benn mbokk moo fa nekk mooy imaam bi bokk taalibe la xamante na daal ñoo bokk dëkk mu jóge fi nag laajte laajte bi ñoo bëgg moom mu nekk foofu imaam ba mu ñëw mu ubbil ko pantare bi pantare jumaa ji <laughs> gis nga ko waaw léegi nag mu nekk ca pantare ba léegoo léegi nag mu noddu <laughs> imaam bi te mooy mbokk bi ten waxul dara de <laughs> benn bés daañu noddu pare rek gis nga ko waxtu julli jot ana imam ana imam gis imam ne ah dama jeexal imam nañ julli <laughs> rek jiitu kabar julli <laughs> imam ñëw fekk ko yi <laughs> pare bu ñëwee mu ne ko ana sama ne yaa ngay dem Kaolack dox ba génn si ci buntu kër gi di xaar oto benn waaye romb la fa ne ah sëñ la nga ne ko damay dem kaw la oto laay xaar nii gis nga nga xamante ne mooy occasion di romb noonu rek di yoru di dem mu la ah kon xaaral ñu tabaxal la fii benn mbaar mu ne loo koy njëkk a tontu loo koy tontu jaru ko wala déet parce que dëkkulu dë taxaw dëkk dëkkuloo fi da ngay def mu ne nag ñun noonu la ñu mel ci kaw àdduna dafa am fu ñu jógee te foofu lañ gën a yàggee xoolal ñaata junni at faat ñu ngi nekk foofu ca azal parce que ñu nag adama la ñu bindandoo ñu romb si fa ñëw war fi am étape bu gàtt fii ci àdduna war a rombaat demaat àllaaxira ci tukki bu yàgg boobu mm-hmm. waaye est-ce naka lañ ko defee dañu ñëw ba ci àdduna tabax ci suñu lépp nag mm-hmm. bàyyi ko dem àllaaxira ak ay lan ak ay loxoy neen mm-hmm. moo tax ki ñuy tuddee walid ba mu wooyee borom xam ba ne ko waa ñun lan moo tax ñu ragal dee mu ne ko dee di yéen a ko ragal ngeen mhm. mu ne ko kon lu tax ñun ñi ñu ragal dee bokk mu ne parce que da ngeen tabax seen adduna mhm. mabbu seen àllaaxira mhm. ngeen di bañ a génnee fi ñu tabax nag yóbbu leen fi ñu mabbu waaye bu dee ñi nga xamante ne seen mbir yëpp dañ ko tabaxee ñoo ñu taxu gaaw moo leen gënal moo tax na ñoo xamante ne dee ragaluñu ko wala déet marhaban bil mawt Hasanul Basri keroog ba muy faat dañ ko gis muy muuñ dañ ko gis muy muñ di muñ di muñ ba mu faatu ba waaye la ko waaye dañ muñ ci kii mu ne parce que li ma yàlla won ne moom moo fay xaar kon xam nga ko tabax adduna fan la tabax alaxira moo tax ñu ne ah in kaana waadu rabbina la mafoola e eh, bu fekkee ne li ñu yàlla dikk moo ñuy xaar yàlla yërëm moo tax ne fa yaa ayyuha yow moomu le albani di tabax fan mahalla diyaafatin fan lay ganale mm-hmm. gan di yeewi béy mm-hmm. ñun nag ñu ñëw yeewi béy yeewu gëlëb alam taalaman alaj ndax di nga xamul ne uh-huh. annal jala dàq bañ lay dàq karibu lu jege la <laughs> dàq bi la jala mooy dàq donc mm-hmm. tabalaale mu jala jala mooy dàq dàq bañ lay dàq karibu lu jege la kañ nga fi ñëw kañ nga fi jóg kon yu fekkee ne yow gan nga looy tabax xam nga am te da nga wax ne ne kuy gan bu commencé tabax parewul dem mm. waaye bii nag neex la naqare da ngay dem <laughs> jarati na tabax sa tuxbiru ka dina la ko nettali mm-hmm. al ayaamu bés ya gis nga ko annaka ne yow mi laay bun mm-hmm. jour nga mm-hmm. yow jour nga ci kaw suuf foxkat nga sa tuxbiru ka dina la ko nettali wala al ayyaamu bés ya bés bu yomal kaama di jotee uh-huh. annaka ne yow laay bun foog nga doon def ci àdduna uh-huh. ka mu mel ni yaa haada gabiyu yow dof mile uh-huh. <laughs> yaa haada gabiyu na <laughs> ka annaka dafa yaa ay haada al yow dof bile salibun dafa mel ni yow àndatutoo ko sa sago salib mooy ku ñu nangu xelam <laughs> maslubul aql loolu lañ salib comme ni nga salib xam nga sal bu mooy nangu nag mooy ku ñu jël رجل سليم ما يقام يدين عند تكتبه كن كأنك دفع ملني يا هذا الغبي يودف بريمي سليم دفع ملني دنجل سخيل لا أمرك من قوي وات كيسا دندو ما يغني دون الجير المغاني سكري سكري دجير مك ما يغني دون مسجير المغاني كري عن الفتاة نسكي إذا بس بدمي بدم أو سال المرب السلام عليكم yaa ngi kon moo noonu yaa ngi kon waaw mu ngi noonu te tux ka boo demee Abdoulaye ibn Abbas daf ko doon def tudd gis nga ko imtisaal ci benn bayit boobu noonu gis sa tubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa taatika bil axbaari ma lam tudawadi bi maanaam nit ki bés yi ñëw ci kanam daf ko mën a jàngal lu bëri ci na nga xamante ne moo passé ci gannaaw bu ko comparé ak moom waaye ñun nag ñoo dul jël la passé di koy comparé ak lay ñëw wala déet yow mii kii sa morom la fii la jaar mu pes ko kee ñëwaat mu pes ko kee ñëwaat jaar mu pes ko yow nga ñëw jaar si foofu lu lay xaar pes ni la àdduna demee ñun nag ñun ñuy def nii ndong ndong yi rek ku ñëw rek tallal ko ndong mu benn duñu mas a yéew moo tax ne sa tux biru ka dina la al ayyaamu bés yi mm-hmm. annaka ne yow laaye bun da ngay fo mm-hmm. nañ dem rek yow mal kaamate bu yegsee mm-hmm. da nga xam ne yow da nga doon fo xoolal ki nga xamante moo la ñuy tudde imaamul junayd radiyallahu anhu ba mu faatu benn waay gis ko ci gént ne ko waa siñ bi naka mu nag mu ne ko gis nga ca la ñu ne ko ñëpp na ñëpp jeex na nee na lam tan faana illa rukayaat lu dul ay raka kunna narkawa bi leel lu dul doon jox par guddi kon affaire bi du caxaan kon kon imaamul Junaydi nee na lam doon def bëccëg na rakaayam doon def ca par guddi sellal ko te yàlla rek tax mu ne yooyu moo ko jëriñ tey kon bari na ñuy caaxaan de bu dee imaamul Junaydi mu ne bëccëgam yi caaxaan la imaamul Junaydi laa de te amul benn heure boo xamante am na espace boo xamante ne yàlla nekku fa nga xool nag tey jii ñun ñii ci jamono kon lu fa de ponkalu lan lañu ponkalu joueur ponkalu foxkat ba ko bëgg gis demal Sénégal kon sa tuxbiruka si njob dana la nettali al ayyaamu besiya buñ dem ba yomal xiyaamat an naka la nga doon def yëpp laaye buñ foxkat nga ka an dafa mel ni li may wax yépp yaa hadal gabi yow dof mi le salibu ndef mi le àndul ak sa sago parce que xoolal adduna ni muy def nit ñi te mu wóor la ne yaa ngi fii ñu ne la yow dëkkuloo fii te jël na say maam yóbbu jël na ñu la ëpp doole yóbbu ñëpp faatu nañ def nañu àllaaxira yow loo am nga def ko fii lu la gën a dof te am nga yóbbu ko fan nga dem réglé ko ji fan àllaaxira seetal moo tax xel la nit ñi mën nañu financé seen un million dugal ko ci kër te kër ga duñ fa def fukki at ñaar fukki at ñu ne gas nañ ko suul nañ ko dem na te boo ko laajoon lu lan laa wax léegi Dakar gars yi duñu jëndee kër cent millions tabaxee ko gis nga ko cent millions du fay am nangu na ko financé foofu pour am kër léegi àllaaxira moo gën a cher lu fa financé moom wala un million mosu ko def ci yàlla ah waxee ne ko cent millions yi def ko ci yàlla mu ne du ma ko def xanaa dof la xanaa dof la la la la lay wax dof laa da léegi nag xëy xëy ne ca rax ci biir àllaaxira léegi fii ci àdduna mënu fi am kër lu dul dafa def cent millions deux cent millions mu bugg a am kër yomal qiyaamati ci lan moo tax il faut nga gëmagum yàlla pire nga mën a defar sa bopp Hasanul Basri ma ne la dafa doon génnee alal laa wax de jox ko ni sarax ko ba pare ne ko jërëjëf waaye ne ko waaw kii moo la war a wax jërëjëf ma ne leen déedéet kii li ma ko jox du benn masala li ma ko jox du fukk benn bu ci nekk yàlla fulandil ma ko ñaata kon maag moom ko uppale man maa uppale kon maa ko war a wax jërëjëf kay wala de moo tax ma ne la bés boo gëmulee àllaaxira doo ko mën a liggéeyal sa yaram def ci dee waaye ki xam àllaaxira pire kooku moo mën a liggéey ci yàlla moo mën a gëm bi def te da xool ci àdduna koo xamante ne dafa dem ci bank wala déet bank bi yëkkati lu mat trente millions lebal ko ko te wóor na ko ne dina ko jot te wolu na ko wala léegi nag nga ne yàlla wóoluwuloo lebal ko lan trente millions bi dama lay wax lebal yàlla waaye lebaloo ko yàlla parce que sa bopp yaa ko moom di moom la la góor gi di wax bi nag ne kañ nga yeewu sa xel bi kañ lay ñëw ma ne la toujours si misaal bi nga koy jëlee mooy béykat béykat nawet dafay jot mu jël dugubam te gars dañuy dem jëli la lay dugub pour mën a am dugub moom mu jël dugubam sànni ci biir suuf boo ko rombee nga ne ko kii dafa dof kii dafa dof yaa ayoo ayol rabiyu sali la amru ko mu ne na ko ci sa dund maa yugni du ma sa jëriñ anil fata nit ki almarani la mu am mar na muy rina la muy am am lu luñu luñ ko askane moom moom lii moom moom lii moom moom lii ko ma sa jëriñ bu dee yére la buy faatu ñu jël yére def ko naka nangu sarax moomatu ko de si njëm moomatu ko boo xasee moo tax ne maxaani lépp lu muy am am lu dal ñu nangu ci loxoom nit dafay dugg bàmmeel ak dal ak costume ak monta dangay ngay bàyyi téléphone da ngay bàyyi muy ci kër gi yëpp la nangu ci loxoom léegi lu mu ko jëriñat ah waaw si Njóob li nga xamante ne yow bés boo ko fay ñu bu ci teloo te nga jiital ko <laughs> mais duñ ko mën a tee nangu bootu mm. alquran ne nga boo ko fa jiitalee duñ ko mën a nangoo ci teloo parce que jiital nga ko bu yàgg da nga ko mos a dégg ci góor gi faal yàgg fa dale suñu boobu te mu doon ñëw di indi doon doon ñëw yi bëri yoon mm. mu ne nañ dugal téere yi ci oto bi mm-hmm. bu dee yére wëlif yooyu na fa def waaye téere yi moom mu ne téeréem du ko bàyyi ci moo tax mu ne du la jëriñ maa yox ne du la jëriñ almakaani yooyu ngay am lu xam mm. ne fataa nit ki isa damma mm. bu demee ba mu ba mm. bu demee ba naj aw saala siddit wala yax al muribbi ki amoon sikki sakka ci àllaaxira taribun lu ñu tuddee suuf bés bu suuf demee ba naj ki wóoluloo àllaaxira keroog la mu amoon du ko jëriñ te dañu wax ne alal du faj dee lu muy faj bul foog ne gàcce àdduna rek de même gàcce àllaaxira waaye gàcce àllaaxira alal gàcce lay faj waaye fajul nag fajul dee il faut kon fexe bi faj say gàcce mu ne keroog nag bañ lay tu tu tumarankel ci biir bàmmeel di la fay toroxal sa alal du la jëriñ kon fexe ba mu jiitu la mu doon jëf bu baax toog di lay xaar bés boo yegsee ñu rusee la jëf ba parce que yàlla nee na amul kenn ku ma fi rus. maa leen di indominé matin tout ça amee lu ma fi yàlla ko wax mama li ahadin inda min ni'matin aw may lu ma fi kenn jukkal wàcc bi jabir bambel di wax naan man xaritu yàlla laag léeg di amu mu teg ci nag waji rabbil ala wala safa yarda lu dul ku jël alam ko yàlla toog di koy xaar lii waxu yàlla de wala de alhamdulillah yàlla nangul yàlla nangul kon jool jiitalal bo loo am jiital ko foofu moo tax alquran nee sa doom sa noon la sa jabar sa noon la parce que boo dee lee ñu defal def yëpp sarax dañ ko def dañ koy nangu yëpp moom bàyyi la nag xamul kenn xamul li nga nekkee ci biir bàmmeel surtout ñuy xew léegi ci réew mi da ngay dee sax ñu toog di ko mhm. <laughs> wallahi waaw def ba dee ci téeru am nga problème demee ba nacc taribun mooy suuf turaab bu demee ba nacc gis nga ko mooy faayil bi ida dama bés bu demee ba nacc taribun suuf aw sala siddit mooy mafool bi mooy mudaaf al murib bi mooy ki am sikki saka ci allah yàlla yàlla musal salli ala sayyidina muhammad bés boobu